وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن القطب المكتوب والبرزخ المحمدية المعلوم سيدي ومولاي أبي العباس أحمد التجاني ورضا التام عن خليفته وارث سره على الإطلاق مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياس الذي هو شمس الفائدة بلا شك وبعد ñu ngi nuyu àddina di nuyu Afrique di nuyu Sénégal rawatina Medina Baye waaye di jiital si nuyoo bi xalifatul am Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass ñi nga xam ne tey képp kuy dugg ci mbir mbiram Cheikh Ibrahim la moom mooy bunt bi kon ñu ngi jiital suñu nuyoo di ko ñaanal yàlla yàlla may ko tal may ko wér may ko fekkee ba mën a teeru ay ganam comme ni mu ko bëggee comme ni ko baayam Cheikh Ibrahim daan defee yàlla mën na ko yàlla na ko def yàlla may ko tamit mu teewee ko ay ati ati ati ati at yàlla def na fekkantoo ne Mawlana Cheikh Ibrahim jamono waaye am nañ chance fekkee moom Cheikh Ahmed Tidiane jamono bi ñuy dégg Cheikh Ibrahim yëpp ñu ngi mu mel ni kon ñun li ñu wees ak li ñu teewe benn la di ñaan yàlla defal ko tawfiq ak li mu bëgg a somb ci fayda bi yëpp yàlla mottali ko ci mbaaxam ci barke baayam di nuyu limaamul akbar sayidi Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé bi nga xam ne moom ponk la ci xadara bi jiit la ci jumaa ji bi nga xam ne mi ngi ko donnoo ci baayam Seydi Ali gannaam magam Seydi Al Hassan Cissé tey nag moo fi ne di ñaan yàlla yàlla mottali ay mébétam yàlla mën na ko yàlla na ko def biñ nuyoo noonu mooy ne yóbbaale nañ képp koo xam ne si njaboot Cheikh Ibrahim la waaye yóbbaale na képp koo xam ne ci xulafa Cheikh Ibrahim la di nuyu waa Alfayda Tijaaniya yëpp di wax ne dëgg-dëgg taxawaay bi rafet na lépp lu umpe woon ci fayda bi lu ci bëri nit ñaa ngi koy gis ci chaîne bi ni nga xam ne mi ngi dugg ci Facebook bi fépp jamono ji toll na foo xam ne jamono électronique la ñëpp ñu ngi si Facebook bi waaye toujours ñu ngi si gis yu bees yi ak bi yëpp fépp foo taxaw boo boo duggee ci téléphone yi danga gis lan moo xew ci fayda bi waaye yëpp fayda tijaani bi am na ci place di leen ñaanal yéen tamit yàlla ngeen dem ba mu nekk ay télévision yu mag bi nekk ci xaalam bi di koy mën a seetaan di mën a xam lan moo xew ci xadara bi di mën a xam axbaarul xayda xadara toujours tey dañ ci shabaab bi sifa amma waaye ni ràññee si nag Cheikh Ibrahim naka la daan doxaleeg shabaab yi shabaab boo ko shabaab boo ko bëggee xam dañ na la moom mooy koo xam ne gént na diggante bi mu géntee ba ni muy amee arbain amna na tamit beneen riwaaya bu la 50 sana ñen ñi na ñeent fukki at la am ñen ñi na juróom fukki at la am waye nak bu ci leer mom moy ne ñeent fukki at bi bobu la mufakkiru ni taxaw ak bahisuni ni jele sen dalil ci alquran alkarim qawlihi tabaarak wa taala hatta idha balagha ashdahu wa balagha 40 sana bari na ci yonenti ñëpp bañ leen di yónni boobu diggante arbaïn sana lañ nekk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom mooy suñu royukaay bañ ko yónnee mi ngi am quarante kon ñu mën a wéeru ne chab mi ngi nekk ci diggante ñaari way new doole yi moom mooy lan diggante bi ngay nekk gone nga xam ne mënoo dara ak diggante bi nga demee ba nekk mag nga xam ne tële nga ci diggante boobu li fa nekk moom lañ tuddee chaab yonante bi sallallahu alayhi wa sallam na li bari ci shabaab yi wane na tamit ay xitteem ci shabaab yi ci saxaabi yi nga xam ne yonante bi jëflante na ak ñoom ku mel ni Musab ibnu Umayr Musab ibnu Umayr kenn la ci saxaaba yonante bi sallallahu alayhi wa yi xam ne yonent bi yónni woon na ko pour mu xamal nit ñi seen diina ak seen alquran al karim comme niñ ko xamee na ci bidaayatul islaam yonent bi dafa départ defar lu ñu naan dawla ba mu defaree dawla dafa seet fu nekk mu samp fa kenn pour ñu xamal nañu seen diina di leen xamal nit ñi seen lislaam naka lañ mën a doxal islaam ba xam ne lislaam du tumuranke comme moom moo nekkoon xaayit ma jamono yi ci gannaaw may liir ba dajeeg benn téere ci falsafa yunaaniya mu mel wa waa Grèce yi waa Yunaan ci jamono dañoo demoon ba bëgg a daane diine lislaam comme nu jeune amee important dañoo ubbi benn école école boobu noonu may kenn mu dugg fa ku passé sept ans diggante sept ans jëm suuf lañ mën a jël ci école bi dugal leen fa di leen jàngal ay jàng yoo xam ne dañuy jéem a pour daane diina ji pour daane diina lislaam di di dugal yeneen yoo xam ne seen bopp yi pour ëllëg bu ñu màggee mën a màggaaleeg loolu noonu ndaxte nit lépp lu màggee rek loolu lay xam kon moom moo tax jeune dafa am njëriñ ci société bi jeune moom mooy fondement société bi lu tax ñu ne la jeune mooy fondement société bi ndaxte jeune mooy magi ëllëg nga dem ci beneen téere yaa ngi fa fekk benn muctamar ba amoon ci benn saxra bi ñu naan bidist saxra boobu li leen itteeloon moom mooy alquran ci biir muctamar bi am na ku yëkkati ne jullit di pour ñu daane leen foog téere bi nii dañ ci seen loxo alxuraan bi la yëkkati te moo tamaat boobu noonu ñu ko ëmboon yëpp ñu ci ëpp ay jeunes lañ kon nag loolu bu demee ba dugg ci bopp jeunes yi bu yàggee lislaam dana tumuraanke moo tax Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moom léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la dafa départ jël ay tànkam jël ay itteem jël ay waxtoom yépp ngir ëllëg lislaam mën a am doole waaye it wa ubrisu lil jiilil jadidi misaala jiilil jadid boobu moom mooy li nga xam ne Cheikh Ibrahim jott na si ñoom pour ëllëg ñi mën a taxawal diina ji jott na si ñoom pour ëllëg ñi mën a mottali mébétam waaye Cheikh Ibrahim yan jeune la wax ne ñoom ñooy mustaqbal kulli watan moom mooy shababul musaxafiina ñi nga xam ne dañoo am culture ñi nga xam ne dañoo am jikko ju waaye ñi nga xam ne seen bëgg-bëgg dafa kawe seen bëgg-bëgg dafa kawe moom mooy niñ ko gisee ci shabab al islam ci ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xool ne usamat ibnu zayd ba muy jiite jeeshu ruum bi pour guerre yi ci ruum boobu amut lu passé dix huit ans ci Usaamata ibnu Zeyd amagul lu passé dix huit ans ñi xam ne ñooñu seen mébét réyoon na passé woon na foo xam ne ànd ak ay mag ñi la mag ñu ngi fa yow ñu jël la jiital la ci jeune boo xam ne amagul dix huit ans waaye loolu dafa mel ni jamono mi ngi dox ba mu bëgg a rafle waaye Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu xeex na loolu ndaxte tukkeem yeeg léppam ngir nit ñi jeunes yi oyewu jeunes yi xam lan moom mooy seen njëriñ waaye jeunes yi xam lan moom mooy seen diine bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko jeunes yu bëri yi nga xam ne jamono Moussa alayhi salaatu wasalaam jamono Moussa gëmuñ woon Moussa pour lan ragal ay mbugali firawna yeneen ak yeneen waaye Moussa bi nga xam ne moom lañ jafawoon mu nekk yonent bi ci jamono yooyu noonu jeune la woon ngir na jeune dafay am istiqaamatu gannaaw biñ bëggee li kawe tamit daf ci boole jub ci xissa yonent yàlla Moussa ba mu jugee Masra daal di dem Madian ci fi nga xam ne yonent yàlla Shuayb mi ngi fa woon ba muy ànd doomi Shuayb yi pour ñu koy wan kër gi nga xam ne fa la Shuayb nekk Mm-hmm. ndaw jigéen ñi ñoo war a jiitu comme que ñoom ñoo xam waaye Moussa dafa tànn ne nañ ko bàyyi mu jiitu jigéen ñi des ci gannaaw bu waree jàdd ñu ne ko jàddal bu waree continuer ñu ne ko continuer pour nag di jigéen ñi seen doxukaay seen noonu loolu bañ na ko ci ba def loolu kon jeune dafa war a am istixaama gannaaw ba mu amee himamul aliya al axlaaq al hamida ñi indiwaat beneen misaal ci قصة أصحاب الكهف فوفو أمنين فا جن يو قمنا سن بغ بغ كوينة القرآن ياغن دي تدو سن جالوري لش أكو القرآن تدنك سي سن جالوري مموي جن يغا قمنا غم سن بروم بيا الله دول لين أنجوب إنهم كدتون آمنوا بربهم وزدناهم هدى jeunes yooyu tamit ci ñenn si jeunes yi nga xam ne soxla nañ leen soxla nañ leen si suñu société bii nii ci lañ jeunes yi ñu si ëpp toppoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu si ëpp ba ñuy gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ay xale lañ laa xarwa yonent bi tàgg na jeunes yi itte woon na jeunes yi lépp léppam jeunes yi la woon waaye dañuy wax laa xarwa ndaxte yonent bi ba muy oote ci diina ji bees diina ji xawatum ranke ñi ko toppoon ñëpp ay jeunes lañ moo tax lépp lu lépp bépp rôle lu jeune am ci diinal islam rek daf ko elloo mën nañu wax ne Aboubacar gëm na yonente bi sallallahu alayhi wa boobu mi ngi am trente huit ans Omar mën nañu wax ne bi muy gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu passé wut trente ans ak keneen ak keneen ak keneen ñi gis ne marxala yooyu noonu moom mooy marxalatu shaab bi nga xam ne moom lañ soxla ci diin al islaam moom mooy marxala bi nga xam ne moom lañ tuddee na sunnal maraxaq da fay toll àddina di la xëccoo seytaane di la xëccoo buwaat yi di la xëccoo jumaa yi di la xëccoo waaye yow seytaane dana dem ba mën la ba nga xam ne yow da ngay jël sa xaalis dem di dugg ci ay buwaat di fay da ngay jël sa temps def ko ci match yoo xam ne quatre-vingt-dix minutes la diw gagné na diw gagné na diw gagné na te amul benn fay gel la jumaa yi nga xam ne amul fay amul dagg ticket lan moo tax jeunes yi duñ ko feesal lan moo tax jeunes ko feesal ñu roy waxi Cheikh Ibrahim yi fexe lislaam di yëkkatiku l'islam di bañ a suufee jeune yàlla yàlla dafa bind nit mu nekk loo xam ne dafa néew doole dafa daayif mu dem ba ci digg jamono mu def ko mu am doole am kàttan jamono jooju la ñuy tuddee jeune jeune mu dem ba delluwaat ba nekk mag mbir mi mel ni dafa ëlbatikuwaat mu daal di néewaat doole moo tax laa ji mi naan la allahu allazi xalaqakum min dofin summa jaala min baadi dofin quwa summa jaala min baadi quwatin dofan wa shayba yonent bi ittewoon na jeunes yi lool lool li ma wax sànq ndaxte jeunes yi ba mu métti ñoom ñoo ko topp ñoom ñoo ànd ak moom ñoom ñoo ko tàllal loxo muy metti lool ñëpp di daw yonente bi di xëccoo ay jeunes neen topp ci gannaawam ngir lan ngir sàkku li nga xam ne yàlla yónnan ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag yonente bi am na ay nasaayax yoo nga xam ne teg na ko ci jeunes yi benn xadis nee na la sabaatun zalamahu llahu fi zillihi yowma la zilla illa zillahu mu teg ci al imaam al aadil waaye ñun la ñu soxlaa moom mooy ashabun nasha fi taatillah ashabun nasha fi taatillah mu ne yàlla dana keral juróom-ñaar yi nga xam ne bés boobu noonu ker dana tumuraanke torop torop torop ker googu rek moo fay ne mu jiital si ne al imaamul adil boo xam ne dafa maandu waaye ak jeune boo xam ne dundam yëpp def na ko ci top yàlla lépp lu yàlla bëgg mi ngi ci waaye lépp lu yàlla bañ wan na ko gannaaw mi ngi wasiya ci jeunes yi ba léegi di leen owaat na leen yaa maachara shabab man istataa minkum al baat fale tazawaj كيف كيب كو قمنا بات غاتك نغاتك فانه اغض للبصر واحسن للفجر ومن ومن يستطيع فعليه ومن لم يستطيع فعليه بالصوم قدمنا باقا يوتم رانك نشي لولو يب يب يب يب يب يب تمنو تك نغا وور من لي كتشي من لي جدي تشي بون شيطان رير الله داكتي شيطان امنا دوله تروب تشي من قتشي قلي xale toujours bakkanam dafay ànd ak seytaane moo tax Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu yàlla nañu ko yàlla fayal moom moo ñi départ rek wan ni nañu nit li ngay njëkkee ci xeex ak moom moom mooy ne da ngay yar bakkanam bakkanam nag bu demee nag ba nga xam ne bépp forme seytaane newatu si bu boobaa moo ne tegu si yoon boo xam ne dafay nekk siraatal mustaqim moo tax Cheikh Ibrahim sa bakkan ba nga xam ne lépp dana si yaru mu daal di la ba ci sa borom ne la xaa anta wa rabbuka yaa ngoog sa barama sa barama ngoog bu boobaa deseetoo dara kon jeune Cheikh Ibrahim noonu lay mel waaye lépp Cheikh Ibrahim mi ngi ko royee ci sangam bi ci soppem bi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gis na yonent bi ay ay ay wasiyaam ci jeunes yi dafa jëriñ lool lool lool lool lool ñu gis ne Muaz ibnu Jabal wax na yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko lan nga may digal yonent bi ne ko na nga ragal yàlla ak ci loo mënta nekk na nga ragal yàlla te di rafetal mu ne ko dolli ma mu ne ko xaaliqu naasi bi xulqin xasan na nga jikkoog ñi ci jikkoo ju rafet laa xar wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu demee bay digal yoon noonu moom mooy na jikkoom la digle ndaxte yonent bi bañ laajee sayda Aïcha ne ko lan mooy jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne kaana xuluquhu alquran ñu dem ci jigéen ñi ndaxte lislaam dafa boole jigéen ak góor fa amee ay am sile ci jigéen ñi rek ci góor ñi rek war naa mën a am ci jigéen ñi alquran fi mu tuddee góor ñi boole na si jigéen ñi innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal qaanitina wal qaanitaati ila axiril aaya jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon jox duruus góor ñi jigéen ñi daal di mer di seen bopp ci loolu dem dajaloo dem ci yonent bi di kaas ne xanaa ñoom jàngale mi dañ cee bokkut yonent bi daal di kontaan ci loolu torop ba daal di leen ne leen xool leen jour bu leen neex ak heure bu leen neex ak fan bu leen neex ma ñëw di leen jàngal kon ñooñu am nañ itte ci diina ji itte la woon nañ diina ji nga ñëw ci zaati bi taaxay muy asma bint abubakar siddiq asma mi nga xam ne doomu abu abubakar la nga xam ne ci gàddaay bi ba bañ bañ nekkee ci xur moom mooy jigéen joo xam ne moom moo doon yóbbu ñam yi ci baayam ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bëri na jigéen ñoo xam ne mën nañ leen a jox misaal duñ tëb duñ jéggi dañuy am ci xadra bi ñu xool doomi Cheikh Ibrahim yi jigéen ñoom ñëpp ko ci gis ittewoon na alquran ittewoon na diina ittewoon na lépp loo xam ne baayam mi ngi ci tegoon tànkam waaye it Cheikh Ibrahim moo leen ko digal man leen yaa ayuha albanaatu zahimna ila dayl leen ula amma bi abdanin fala moo tax ñoom tamit tànk yooyu ñu ngi ci ñu ñëw ci góor ñi delluwaat ci ci ku mel ni Abdullah ibn Abbas mi nga xam ne siiw na ci xam-xam waaye siiw na ci mën a ci taarix dañuy wax ne moom sax moom moo doon wax ne naka lay nit di mën a dara te du ko mokkal yonent bi daal di ko ñaanal ne ko allahuma faqihu fi diin wa allimhu wa allimhu taawil zaakum fa tarkuhu li inna lahu lisaanan uqulan wa qalban suhulan yooyu yëpp ñu jël ko mandargaay ko moom abdullahi ibnu abbas waaye gannaaw dañuy ñëw ci beneen misaal ki nga xam ne moom mooy Ibrahim alayhi salaam jamono bi nga xamee ne ñeneen ñi tee nañ seeni ay ay yu bari bu koy jaamu ne yàlla yooyu rek moo mën ci ñoom dara benn yàlla bi nga xam ne moon ci ñoom dara Ibrahim pour nga xam ne jeune dafa war a am fit fit gi moom mooy lan fekk la nga nekk ci dëgg Ibrahim fit googu ma amoon dafa nekk ci dëgg moo taxoon mu dem fekk seen yàlla yëpp tege mu daal di ramasser yàlla yëpp bàyyi fa bi nga xam ne moom mooy mag mi moom lañ yaakaar ba ñëwee ku daane yàlla yi ku daane yàlla yi ah yàlla boobu de mënta wax Ibrahima na leen laaj leen seen yàlla ji nii bu fekkee ne moom mën naa wax ñu daldi ne Ibrahim yow la Ibrahim ne ko ne leen lan ngeen di jaamoo loo xam ne maa laa yanfaukum wala yadurrukum uffin lakum wa lima taabuduuna min dunillah naka ngeen di jaamoo loo xam ne mënul leen a jëriñ mënul leen a loor yàlla ngeen bàyyi fi loolu noonu dem jaamu ki xam ne kenn la torox seen ne weesuwut ngeen di jaamu loo xam ne mënu leen a jëriñ mënu leen loor ngeen di jaamu lu dul kilifa ga daal dina xuzu xarriquuhu dugal leen ko te ngeen lakk ko ci la ibrahim ñaane yàlla ñaan googu noonu kunu bardan wa salaaman ala ibrahim ibrahim nas radiallahu anhu mi ngi wax ne salaaman boobu noonu moom moo tax sedd bi ëpp ëpp sax lool waaye sedd boo xam ne la مسائل خلفاء بن باري دوغار سي لنين سيدنا علي يوم خيبر بغا خمنا صلى الله عليه وسلم دا فا ديكلار ان سوبو دا نا جوخ راي جيكو خمنا بغنا واي يالا بغناكو اك كرش بوبو دا نيب نبن نان مو نيك صلى الله عليه وسلم نيو نه تي سوبو اول علي فك علي wànnantu yonent bi daal di koy jox raaya ji bésëb xayba aliyun boobu tamit moom mooy koo xam ne moom moo fi daaw woon yowmal xijra suur bi na xam ne yonent bi mi ngi gàddaay moom moo demoon tëdd ci lal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gisul lenn lu dul na nañ ko rey mu nekk ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk koo xam ne dafay nekk fidaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te boobu aliyin di koy def mi ngi am vingt-trois ans 23 ans Ali ibn Abi Talib bokk na ci ñoo xam ne ñu ngi woon ci Badar waaye bokk na ci ñett ñi nga xam ne ñoom ñoo jiital woon mubaarazaat yi ñoom ñoo ko njëkkee moom sidna Ali ibn Abi Talib ak baayam Hamza ak doomi baayam Ubayda kon kooku tamit référence la ci l'islam waaye du référence la ci shabab l'islam waaye référence la si ñun ñi nga xam ne Cheikh Ibrahim teg nañu si yoon bii nii ñi jël ñu mel nii nii référence si ñoom nga ñëw ci xandak ba ñëwee si xandak ah, Omar ibn Wed kapsil katiba bi nga xam ne ñëpp dañ koo ragaloon Ali Ali Abi Talib moom moo am jàmbaarte song ko ragloo moom ba daal di fay kon Ali ibn Abi Talib jeune la waaye it am na fit am na jàmbaarte ci lan ci dëgg ak ci loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ko waaye ak ci loo xam ne luy jëmal diina ji la ak ci loo xam ne luy jëmal kanam ci diina lislaam la nga ñëw ci Abdullah ibnu Amar kii rek buñ ko joxewoon misaal doy na ci shabaab lislaam Abdullah ibnu Amar bëgg na amoon na yéene pour bokk ci badar yonent bi sallallahu alayhi wa koy aaye ngir lan ngir dafa nekk xale waaye ngir la xolal ma xale yooyu noonu nga xam ne xale lañ waaye seen mébét dafa kawe seen mébét dafa kawe kon Cheikh Ibrahim sànniwut waxam lépp lum mu am na ay dalail Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nee na moom yan shabab la soxla yan shabab la wax mooy ñi nga xam ne seen bëgg seen dafa kawe seen jikko rafet ak ñoo xam ne dañu am culture tamit boole ci Abdullah ibnu Amar boobu tamit gannaaw ba mu jéemee pour dem Badar yonent bi tere ko li Cheikh Ada Sinnihi ngir ne moom xale la mu jóob pour dem Uhud ba mu jéemee pour dem Uhud tamit yonent bi waat ko ngir ne moom xale la yow jéem nga dem Badar ñu aaye la ngir ne yow xale nga jéem nga dem Uhud ñu aayewaat la ngir ne xale nga waaye tamit loolu doyut amu fa toog rek ne man xale la waaye dafa defaat beneen effort xasatul xandaq ci la ko yonent daal di jox ndigal mu daal di bokk ci xandaq kon essayé na ñaari yoon yonent bi aaye ko ngir ne xale la mu essayé waat ñetteel bi yonent bi daal di koy bàyyi mu dem xandaq dañuy tëjee ci cheikh ibrahim radiallahu anhu mi nga xam ne jotaay bi moom moo ko jaral cheikh ibrahim léppam ci ndawam la ko def jamono jafe lool lool lool ndaw bu toll ci vingt un ans yaa ngi xalaat leneen suñ jamono tey ji ne bëri na ñoo xam ne yaa ngi ci sa vingt et un ans seytaane yaa ngi ko topp waaye it yaa ngi taxaw ne man jeune la damay dox sama ndaw ba ëllëgee mag ñee ma dox ko waaye déedéet du noonu boo soxlaa sa mag ëllëg ci sa ndaw ci nga koy doxee moo tax Cheikh Ibrahim ci ndawam yépp daf koo jàng daf koo jàngale ba ba muy taalif ruuxul adab mi ngi ko taalifee ci vingt et un ans ci la ko taalifee tey ci ruuxul adab fi si njëkk moom mooy ne ussisa bi sunnatin wal furqaan ñu ngi ko fondement ci sunna ak alquran kon moom du wax loo xam ne dafay génn sunna ak alquran waaye it jeune boo xam ne xam nga ne ñu liir téere bi ëllëg xam ne xañ na man man nañ la si ay at man na la si ay at waaye maguñ la ci xam-xam yaa ngi leen wax ci biir téere bi ne leen nasihatun minni إلى إخوانه تبو طيب، أبو شايب راح يقول حق نيب فلتمسكوا طريقة التجاني طريقة محض الفضل ورضواني أسس بسنة وفرقاني كركو كنت نوام لديباري بأم فت فت نقمنا مما ينتل نمشقسنا دمنا تحج بوربي أفتلين مدال دي توك نيب نيب نيب توك والله ما يفبري توك بوربي دي واح كوش نيك دي واح دي تاق بوربي دي تاق بوربي دي تاق بوربي دي تاق بوربي, دي Cheikh Ibrahim Niass daal di jóg ne xanaa bala ñoo tagg buur bii nii ñu tagg ki nga xam ne moom moo ñu fi dajale ñun ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte bu taxatoona moom kon tay kenn du fi toog kon ñu njëkkee tagg kooku na bala ñoo tagg buur bi nga xam ne dañ fee barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan Thank you.